assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa eh, mbokk yi alxaqu saabit ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di siyaare mbokk yépp ba fépp suñu kàddu toll rekk ñoo ngi nuyu ñu te di leen siyaar di ñaan yàlla moom boole nu aaji faju ndimbal yàlla Euh, di ñëw nag ci tomb boo xam ni euh, bi ñu ko sàkkoo ci man sax ngir ma indi ci ay leeral dama sàkk woon ci kooku ni ko jëru ko ndax ñàkk tënku ñàkk tënku ci xam-xam te su fekkee nit ki nag dafay waxe bàkkanam rek su boobaa ay waxam jërut di bàyyi xel mooy waxi nit ku amul xam-xam moog waxi xele ak waxi dof ñooyam ab atte su boobaa kenn waru caa sukkandiku nag di atte wala nga sukkandiku ca di yàq sab temps ca loola kon lay gën rek mooy nga dumooyu ko te ñaanal ko suñ borom tabaraka taala yàlla génne ko ci situation yi boobee mu nekk ngir ko mu mën a dellu ci dëgg te mën a ci njub te ñaanal ko la ëpp solo ci doomu aadama mooy ragal yàlla ndax doomu aadama bu ragalee yàlla rek ci la mbooleem mbaax yépp di dajee ci moom ci mbooleem xeeti jub yépp di dajee ci moom waaye ci la mbooleem xeeti ngënil yépp di dajee ci moom waaye ca ragal yàlla googee ca la ko yàlla yenkewale mbooleem xeeti xam-xam yu nëbbu ya ak yu feeñ ya te mooy lañu yàlla waxoon ni su ngeen ma ragalee rek ويعلمكم الله سنين راكلي يالا رك يالا خامل لين لو خامني دوكو مانا جانغ تيب تيري واي دوكو جيساف تيب تيري لولا تيراغال يالا رك لكو يالا مانا ينكي ولا نيبكي آه، كون يالا نكو يالا دفال تي دفال كومبو كييب كون نك لولو ني ليرا رك تي تومبو بوبو mu jëm ci jëm jooju nga xam ni dañuy seexlu sax di tudd aw turam ñu koy wax alpha ba euh, te nekk ci bitti di jël jëmm ju melni serigne touba tuba anhu di jël ay kaddom ci ay mbindam di ko def luñu tudde tudde du ci arab neena ay day ma teggi wax jojja ndax neena ay dafa wuuteeg alquran ak sunna ca seen jamaaya bobé wala seen kurel bobé wala seen groupe bobé ñu tudde alquran ak sunna di ko fa jaarale ba loola di yegsi ci ñun di yegsi ci ñeneen loolu moo tax rek ñu di leen ci andi leeral waaye du doon sax ñun ab raddu ndax kuy raddu da ngay raddu nit ki ci xam-xam kuy raddu da ngay raddu borom xam-xam waaye ku xam ni jaahil la ko xam ni ci aba rek la tollu te na mu koy liire sax baaxut amul dégg gu baax ndax fer i jéem baaxut amul gu baax ndax mboolem kamiya wala maalumaat yam wara am wala imkaniyat yam wara am ngir mana deg arab waye ngir mana jefandiko arab waye ngir mana am xam-xam bu ko dimbali ba mu mana am ak fahmu lolou lepp suñ borom yénkewalu ko kon nag danay ndaw lol muy nan day naqdu ay wax wala muy dem nan day firi ay wax kon la ko waron rek moy tollu ci ijeentu te ijeentu tay ñaan yalla joge ci situation bi ba yegg ci beneen bu gën su ñuy ñëw di leral dañuy dik fi nga xamanteni ni si fi la waxe ndax dafa ñew ci bayiti serigne bi radiyallahu anhu daa di wax ni serigne bi fimi wax ni allama bi khawdihi ilayya albayta rafian bi madhiya mu wax ni wax joju dafa confirmer rek la serigne touba radiyallahu anhu waxoon ca ginnaaw ca ba may wax ni jumaa ji wala kaaba gi suñ borom tabarak wa taala ci tawféex yàlla ca ma suñ borom tabarak wa taala defele mbootum indil ma jumaa wala indil ma kaaba gi loolu nag wax ju xaw a xóot la ci wàllu tasawuf waaye ku am ak deñ gu réer ci wax waxu nitu yàlla loola dana nekk lu ndaw tuuti ci yow du rëy yenn rëy yi ndax doo ko fiiree rek ay yan waaye dana am neneen noo ko déggee loo xam ni lu ñu mën a layal la ci côté xam-xam te suñ tomb bale jaaral ca lañ defe woon ay leeral ci lu jëmoon ca loola indiwoon nañ ci ay wax yu bare bare bare bari ngir leeral loola ba nga xam ni kii yàlla mayug dégg su jëlee ñaar yooyu jëfandikoo ko comparé ko dana xam ni ka doon wax lële daa toll ci ijjant rekk di wax ak réere lu bare bari ci ay xeeti xam-xam wala ci ay xeeti maalumaat yu waroon a am ci xam-xamu sharia waaye dañu kumpa ci téere yi doon na ko dimbali ngir mu mënoon a mucc ci fakkastalu yooyu mi fakkastalu bay defeel ak waxal nitu yàlla yi li nga xamante ni si eh, ci bakkanam fekk la ko teg so waxe mu nan la andil alquran wala andil hadith loola moy fa yam nak moy loolu nga xamni mom moom la alfay def ndax buñu xolé alquran karim liñ ci fekk ci ay dilalat xataiya lu néew la doonte xataiyatul wurut la waye dilalat al xataiya lu néew a néew la ci alquran te monte day borom xam-xam yi jëfandikoo xiyaas boroom xam-xam ngi ba jëfandikoo yeneen yu bari ci ay jumtuwaay yoo xam ne ci lay sukkandiku ba mën a def ay istinbaat ci ay ahkaam ba mën a xiyaas yu bari ba mën a génn yu bari ci ay acte yoo xam ni mënoo koo indil texte boo xam ni xatiyatu dilaala la ci alquraan karim mënoo ko koo indil ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu def seeni xiyaas daal def seeni góor ak seeni ijtihaadaat ba génneel ko nuñ ko mën a sukkandikoo ci sharia ba ak ëppal du ci am waaye ak yeesal du ci am kon loolu muy wax dañuy jàpp ni rek euh, te dafa am loo xam ne du masala sharia ndax su fekkoonte ni fii masala sharia la kon su boobaa la wax ni nit ki indil dalil ci alquran wala sunna waaye nag mbir la moo xam ni yàlla moo koy yenkeewal jaamam bi loola mu wax ko pour sant yàlla wala mu wax ko pour delloo ndukal yalla ci xéeti sant yi nga xamni yalla sant nako jaam bi mu man ko def kon su boba lola ken la ju ci dalil alquran wala sunna lola wax ju xawa tardé la wax ju delu gannaaw la mana waxi dof la ki koy wax amul xel ki ku amul xel nak la ko war rek moy sax jiko ki koy wax day wone ni jangul dara xamul dara day wax rek pour inkar day wax rek ngir kontar day wax rek ngir noonu kooku nag ay waxam jëru di bàyyi xel baax moo tax tomb booba jotuñu ci lan ca jotoon a leeral doy na sëkk du jar sax ñu ciy dellu siwaat ci wax ji sëriñ bi wax radiallahu anhu wax ni suñ borom tabaaraka taala xamal na ko ci wommatal goo xam ni wommatal na ko ay ngëneel yoo xam ni suñ borom tabaaraka taala na mu yëkkatee kaaba ga suñ borom tabaraka wa taala na mu ormaalee béréb boobee ci la ko yàlla yëkkatale ay kaawteef ci la ko yàlla yëkkatale ay may yoo xam ni may yu gërëmu la ngëneel yu gërëmu la fa yàlla moom nag mu jël wax ji daal di ko traduire nu ko neex ci bakkanam daat ni albayta rafia bi al mardiya mooy néeg ba yëkkati nañ ko ci man loola euh, xalaatu boppam lay gis-gisi boppam la wuuteeg lool ak euh, ay dégg-dégg waaye du ñu guddal ci wala duñ def taamukh ci firi bi ndax dañuy delluwaat ci sëriñ bi radiallahu anhu lim nu doon wax rek mooy dafa xam ni kalaamuhum isa dahaka ya balid فقل كما قال سكي عبد الودود كلام الأولياء لست أفهم لأنني أنا أنا وهم هم mu ni wax yi nitu yàlla yi bu la jommalee yow mi nga xam ni da ngaa gàtt xel ku mel ni alpha su boobaa la ko war rek mu wax la Abdul Wadud Sakki waxoon ñu koy wax Abdul Wadud Ibn Abdallah te mu bokk ca ko jóg seen xiiti di Mauritanie dafa waxoon ni waxi yàlla daal bu la jommalee dangay wax ni ah man day xam ma li muy wax ndax mooma moom mi koy wax man man kon nit nag nit ndab boo ko tiimut te fekkewoo woo bañ koy duy lu dangaa seen ñu yanu ko rek nag te ndab la amul dara luy fe màndargaal luy feeñ ca biir kon soo nee ma nekk ca ndab la lool ak ñàkk ragal yàlla la te na yonent bi sa alayhi wa sallam nit ki bu yàlla nag mën naa def lu ko soob waaye mën wax lu ko soob ah, ci tomb boobu rek lañ koy liyeel te abdallah boomu di abdul ah, ku suñ borom tabaraka wa taala yénkeewoon na la ci xam-xam ña dëkk foofu ca Mauritanie wala ñi amul gëstu dara xam na ni ku yàlla mayoon xam-xam la bokk na ciy bindam téere boobu ñu wax ni rawdul xuruun min turrati ibnu buuna moom abdala moom mu di abdul wadud mi ngi génn àddina ci 1869 ci eh, miladiya kon di nekkoon boroom xam-xam waaye maandu ak ragal yàlla moo ko mayoon ba mu gisee waxi nitu yàlla yi duggul ca biir di am lu mu weddi wala duggul ci biir di am lu muy tuxal wala di am lu muy jiima diingat waaye dafa xam ni yàlla kat mooy joxe ngëneel te ci ngëneel yooyu ci loxoom la nekk mu ko jox kenn ku ko ku ko soob te ngëneeli yàlla yooyu kenn mënu koo tax diit ni fii la koy yemale wala yàlla dana defal lii nit du defal lii nit loolu kenn sañu ko ndax amul dara lu koy wéral moo tax Sëriñ Tuubaa anhu waxoon ni wa minhu aful mari amman zalama wa misluhu i'taa'uhu man harama li ñu li mu jàngale woon moom sëriñ bi radiallahu anhu mooy afaftu anil a'daa'i turran noonu yépp baal naa leen jéggal naa leen boo demee ca xasidak taysiir wala ci yeneen xasida yu baree bari sëriñ bi ma nga fay ñaan ak jéggulul mbooleem umma muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal yërmande yàlla ci ay béréb yu bare bari ci xad ci ay waxam naka noonu wér na ci mbir tamit ni wax na ni baal na képp ku ko tooñ moo tax mu ni képp koo xam ni nag nanga baal nit nag ci koo xam ni daf laa tooñ lu mel ni ka naka noonu ak jox koo xam ni daf la xañ te noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon mu ñëw ngir leeralal nit ñi loolu waaye ci mu gën a yomb gën a neex mokkal mu indi ko bil maana daal di ko woy kon te wax ju wér la ju jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sëriñ bi radiallahu anhu bokk na ci li waxoon mu ne nag nit yàlla yooyu lan mooy seen mbir mooy mukaasin lahu muxaddaraat ulumihi wa kulla sirrin suñ borom tabaraka dana leen wuññil mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ni yàlla koy maye mboolem asrar ya nga xam mooy asraarul ilaahi yépp yàlla dana leen koy yenkeewal mboolem xeeti sekkere ya mboolem xeeti mbaax yépp yàlla yenkeewal leen ko ki yàlla yenkeewal loolu nag kooku nag sañ naa wax ni yàlla may na ma nangam sañ naa wax ni yàlla defal na ma nangam su boobaa loola nag amut ci sariatul islam yi amut luñ ci laaj naan fu ko alxuraan wax fu ko sunna wax ndax loola bokkut ak lii farata la wala lii luñ sopp la wala lii waajib la ba nga naan fa ko alxuraan ak sunna wax kon jëm jooju ñàkk a xam akuk réer moo waral façon laaj yooyu mu wax akuk cànkute di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla gindi yal na ko yàlla wan dëgg ba mu denc ci mbewteem googu di attaqué fu mu toll ay nit yàlla di attaqué fu mu toll ay nit ñu baax di attaqué fu mu toll nit ñu ñoŋ te yàlla ñoŋal leen ci waaxir ak ci baatin loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ci hadis boo xam ni uqbat ibnu amir moo ko solo radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni moom moo wax ni damaa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko man na ana lan mooy muccal nit ki ëllëg yowmal xiyaam nee na ma am sik lisaanaka na nga jàpp saw làmmiñ ba ca jeexitalu xadis ba lam ko wax mooy ka wab kii ala na nga jooy say ñaawteef te japp saw lamiñ hadith bobu imam ahmad solo nako naka nonu imam tirmisi solo na hadith bobu kon dañuy wax alpha ak ñi melni mom ni bokku na ci sëriñ bi day lim doon junji di ko jàngal nit ñi te lolu moy dogal yalla muni wasahatul midan la yukhfiha iba unamlatin sulukun fiha, mbedd mu yaatu di di ab 30 ci su fa nit ña soobo wala oto ya di fa sóobu waaye benn mellantaan taxaw fa leen di fa sóobu du yàq dara ca ñàkk sóobam nga loolu mooy ngëneelu yàlla li muy defal doomu aadama mooy li yàllay may doomu aadama kañaan du ko tax a deñ wax ju ñaaw du ko tax a deñ xanaa kay kay wax moo cay alko kay wax moo cay amee sànjum yàlla ndax tooñ na nitu yàlla te alquran ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi moo ñu waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man aada waliyan wala koo xam ni jàmmaatloo nga ak wali wala noonu nga ko noonu boo ko waaye man yàlla nga amal combat eh, noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa junje woon aw kama qaal eh, kon ñoo ngi jéggalu bu baax dafa am ab dog-dog moo taxoon waaye ñoo ngi dikk nag ci li nga xam ni mooy jëmm jooju di alfa li muy weddi fan mooy cëslaay la ndax kami askanoo de di ibnu taymiya ak ña nekk ànd ak moom ñoom de amuñu fenn foo xamante ne si yaxal na nañ fa pour jiima weddi loola wala jiima diingat loola bu ñu demee ci téereem bi moom Cheikh Islam ibnu Taymiya ci téere bi nga xam ni moom la tuddee al aqidatul wasitiya ci diggante safa 81 ba safa 82 dafa wax ni bokk na ci usulul aqidatu ahli sunna wal jamaa mooy tasdiqu bi karamatil awliya mooy dëggal ak confirmer karamaat yi nga xam ni suñ borom mi ngi koy defal nit yàlla yi yéemu ca waaye mu ni wa ma wa ma yajri allahu subhanahu wa taala ala aydihim ak lépp loo xam ni yàlla mi ngi koy jaarale ci seeni loxo ci ay karamaat min xawaariqil aadaat ci loo xam ni ci aada nit waru ko woon a man waaye yàlla defal leen ñu xotti baax li ñu tuddee xotti baax mu ni suñu borom taala bokk na ci lim leen defal te ahlu sunna wal jamaa tasdiq ku dëggal ko ci seeni usul la bokk nee mooy xeeti xam-xam yoo xam ne yàlla da leen koy yënkewal ñu ni ko ak lan mu ne ak xeeti lu ñu tudde ay kusufaat mooy mu kaasafaat yoo xam ne suñu borom tabaraka laa dana leen ko yënkewal nee na yemu ca bokk na ca li ñuy tudde anwaaxul xudra ay xeeti kartan yoo xam ni ay man-man yoo xam ni yàlla dana leen ko yënkewal walif muy dugg ci buntu pë lu ci alquran wax walla lu ci sunna wax naka noonu way wa taasiraat ak i taasiraat yoo xam ni yàlla dana ko def ci ñoom ñu man koo jeexital moo xam ci nit ñi wala ñu man koo jeexital ci mboolem mbiri suñu borom tabaraka taala ci may suñu borom tabaraka taala te moonte bu ñu delloo ci wàllu aqida baatu taasiraat bi mu fandiko ah, borom xam-xam yi aqida yi yéen wax ni taasir amut ndax ñoom dakkoorul ni taasir dara mën na ko def lu dut yàlla subhanahu wa taala ndax moom loolu mu yaxanal ci wàllu jeexital euh, loolu day bu dee ci wàllu aqida sax ñoom dañuy dàq loola ni jeexital yàlla rek moo tax sëriñ bi radiallahu anhu ci mawaahibul qudus wax na lu mel noonu mu ni nag loolu kal masu kal masuuri an loolu nag mooy li nga xam ni lu ñu soloo la ci salaful umma li ñuy tuddee salafu saalihiina mu ni loolu lañ soloo ci ñoom mu ne nag boo demee ci lu mel ni xissatu suuratul kahfi ak mboolem tafasil ya ci ñëw mu ne loola ak yeneen yu mel ni moom nee na yooya yëpp nangul nañ leen ko ahlu sunna wal ànd na ci yooya mu ni naka noonu ak mbooleem ci bidaaya bi nga xamoon am na ci birum umma islamiya bépp moo xam ci sahabatu rasul la moo xam ci taabiina yi ñoom ñëpp ànd nañ ca yooya tasdiq ko ak mbooleem xuruun yi nga xam ni jiitu woon na mu ni loolu mooy li nga xam ni lu ñu fekk muy am la ak amam ba yowmal xiyaam mu ni loolu la ahlu sunna wal jamaa ànd ahlu sunna wal jamaa ci ñoom ci loolu lañ ànd ah, loolu moom moo ko bind moom Cheikh Islam Ibn Taymiyya loolu ci téeréem bi ñu tuddaa xaqidatul waasiti